mosu danaa mosulu billaahi ci yàlla mi na seytaane ci seytaane arrajiimi ko di ku njam euh, bismillaahi rahmaani rahiim alhamdulillaahi wassalaatu wassalaamu alaa mawlaana rasuulillaah waaw tey ñoo daje woon fii ci mujamau Cheikh Ahmadul Xadim li tarbiyati wa takwin ngir ginnaaw bu sëriñ Mouhamadul Muntaqa xafisahu llaahu taala war a ubbee daara ji dalal ñëpp tey nag ñuy jàng majalis muy njàngum xam-xamu cosaan mi ñoo doon daje di tàmbali jàng ñu indi woon nag alxaaji Mbàkke Jaxate xam ne mooy jàngale fee ci jumaa ji Daarul Maarifil Islaamiyya mu war a ñëw tàmbalil gone yi bind biñ njëkk war a tàmbali jàng ñu barkeeloo ko ndax si jumaa ja la nekk boobaa léegi mën juróom-benn fukki at dafa jàngale xam-xam ñu bari ci ñi fi ne fii tey di ay dongaam wala ñuy dongay dongaam ñëw nag ànd ak sëriñ Ahmad Badawi mi nga xam ne moo jiite daara ji di mu jamoo Cheikh Ahmadul Xadim majalis doon benn banqaas yooyu di jàngale xam-xame lislaam yi nga xam ne euh, mooy cosaana yi waaye di ko jàngale ci làkku arab muy daara joo xam ne mën nañu wax ne bu lislaam duggee Sénégal tasaaroo fi njàngum majalis moomu la mooy njàngame lislaam njëkk xam bi mu tasaaroo ginnaaw bi na yaatu yi ñu ubbi ay école yu mag ñu ñëw fekk si ko ànd ak moom ñu jàngale di yare waaye bii nag mooy bi fi jiitu mën nañu wax ne mag ñi ñu xamoon fi ñëpp ci réew mi ñu yor ngànk diine ji tasaare ko it ci daara yi lañ génne moo tax sëriñ bëgg ñu sàmm ko euh, téye ko waaye nag yeesal ko yeesal ko mooy lañ baaxoo woon a jàng lépp ngir nit ñu dégg diine dégg it làkk bi nga xam ne moo ëmb diine muy làkk arab dañ ko fi jàng waaye yeneen xam-xam yi nga xam ne it adduna ko soxla lislaam soxla ko ñooñu lislaam aajowoo ko it danañ ko ci boole xëy na li ne woon ci daara cosaan yooyu daan ci ay manqué manqué ci yoo xam ne it lu jëm ci nu ñuy natte gone gi ak ni ñu toppee njàng mi ak fu mu toll ñu wutal ko fa ak këyit wuy saxal ne toll na fii loolu lépp nag ñu mottali ko ci mën nañoo wax ne daal majaalis loolu la ëmbut njàngum diine la mu xóot moo xam ne ki fi génne lu ñu yaakaar ci moom daal mooy lépp lu ay ci xam-xam yi diine dana ko a pegg waaye xam-xam yi nga xam ne dana ko mën dimbali ci àdduna ngir mën a dund ci mbooloo man a amal njëriñ nit ñi it amal njëriñ diineem xam-xam yooyu it danañ ko ci boole insha allahu waaye daal baasum njàng bi xam-xamu diine la ci làkku arab njàng mi insha allah taala gaaw lay tàmbali bu soobee yàlla gaaw ba àll ba la ñuy jàng neuf heures ci suba lay tàmbali ba une heure trente bis bu set xale yi danañ jàng ñeenti dars ñeenti bind euh, njàng moomu nag mooy wéy ci at mi eh, xëy na ren ji mu demee nii waaye ni baaxu amee dëgg-dëgg octobre lay tàmbali incha allah ba fukki weer lañuy ñuy jàng ci at mu ren nag xam nga daara ji waxtu yu la ubbi kon ci la ñuy tàmbali jàng waaye daal njàng la moo xam ne bis juróomi bis yi lañuy jàng ci si niñ ko xamee fii gaaw lay tàmbali ba àll ba waaw dañuy xëy jàng bu une heure dañuy wàcc. Euh, waaw xanaa dénk leen ci lii sëriñ As Jaxate doon wax ñu xam ne jàng moom xam-xam sëriñ bi daa wax ne bu leen soxlawoo lu dul ak njub yéen ñi gëstu yéen ñi jàng yéen ndaw ñi seen yitte ne jenn mooy gëstu moom mooy ak njub njub nag boo ko bëggee dangay jàng te li mokkal li ngay jàng te fi ngay jàng yi nga di ko bàyyi xel environnement te loolu dégg nañ léegi suñu xam ba dawi leeral majaali saxaaw mooy environnement bu baaxut léegi nekkatul ab barab waaye écran la léegi nit ñi war ko bàyyi xel loolu ñu bàyyi ko xel xale yi moo tax fii xale yi jàng si yëpp dañuy wax ne dañ leen di tere ñu téléphone am na fi kilifa yoo xam ne ñoo yor liggéey bi ku soxla euh, jokkook sa doom moom ngay jokkool ku fi dikk dañ la jox numéro yoo xam ne ñoom kilifa yor liggéey bi dañ la jox numéro yoo xam ne ku ku soxla sa doom boo jokk moom da nga ci amul leer waaye daal euh, bëgguñ kenn di fi indi téléphone ndax mën a sàmm jàng mi waaw diir bu